njëkk tukkee ci exploitation pétrole ak gaz bi ñu war caa rek jot fii at mi di jeex loolee nag war a nekk rek opportunité ci Sénégal ndax it dina dugal loxoom bu baax ci koom gi waaye nag ci réew yu bari exploitation boobe jur na rek ay xeex yu bari ngir nag loole lépp ba ñu am ci Sénégal ñu rekk war a taxawal ay défi yu bari ngir rek mucc ca. am na d'abord lu ñuy wax euh, xaalis bi nga xamante ni day jógee ci exploitation ressources yi am na si benn wàll boo xamante ni dafa war a dellu ci collectivité territoriale 0,5 pour cent chiffre d'affaires u compagnie bu nekk hmm, yi opéré foofu noonu dañ koy jëlaat jox ko collectivité locale bi le défi de la transparence yàqute aalam gi yàqute garab yi waaye tamit yàqute jaww ji te rek la ñu tuddee rejet de gaz effet de serre loolee lépp nag bokk rek ci exploitation pétrole ak gaz li nga xam ne nag moom lay gën a laal mu di rek napp gi. dañu ni ba exploitation bi tàmbalee ba léegi seen ay débarquement journal yi ñu doon am ci napp dafa wàññeeku. te jàpp nañ ni ñoom exploitation pétrole ak gaz bi moo ko moo ko sabab l'enjeu et la défi mooy nan la ñuy def ba jéem a wàññi impact yooyu impact négatif yi maximiser impact positif yi nguurug Sénégal nag taxawal ay mbir yu bari ngir rek boobule exploitation ku nekk mën caa gis boppam. population boo xam ni moom loi constitutionnelle bu 2016 bi dafa ko jox la consécration donc lu ñuy woowee appartenance des ressources naturelles. waaye liggéey bi tamit daf ci boole structure yoo xam ne dañ ci war a bokk pour que ñu saytu loi yi ñu war a jël décret yi ñu war a jël pour xool est-ce que suñ ko tegee tamit mettre ko en œuvre dina jëriñ askan wi. exploitation pétrole ak gaz war a rekk ànd ak càmbar lu bari waaye tamit ay pàcc yu bari yu ñu war a waxtaane coalition Publiez ce que vous nag war a rekk càmbar transparence dans la gouvernance du secteur extractif au Sénégal mu di nag ay pàcc yu bari yoo xam ne nag li leen tax a jóg rek moo di fexe ba boobule exploitation ñëpp dugal ci seen loxo waaye tamit ñëpp gis njariñ la